ñu ngi leen di gërëm di leen euh, sant bu baax yéen ñi faral di ñuy seetaan saa su ne ci leexal TV Leral point net ñu ngi euh, fii ci Kaolack gannaaw bi ñu ñëwee fi nga xamante ne moom mooy Tabangoy état bi nga xamante ne moom la ñuy seen caniveau yi mu doy waar lool tax na ñu ñëw tàllal micro ñi nga xamante ni ñooy askan wi ndax jafe la ñuy dund gis ngeen euh, noonu fi nga xamante ni moom mooy Tabangoy fii ci biir Kaolack daanaka quelques kilomètres de médina Baye mais état bi nga xamante ne moom la seen caniveau yi nekk ndax à ciel ouvert la mais aussi ndox mi salte salte boo xamante ni kenn xamul nu mu tollu mbalit mi yëpp euh, daanaka fii boo gisee à perte vue da ngay gis ni ki canalisation yi dañoo tilim mais aussi à ciel ouvert la mu doon ay risques yoo xamante ni xale yi léeg-léeg ñu daanu fa mag ñi aussi mais euh, ndox mi saa musaana taw rek nee nañu euh, ndox mi daanaka dafay wala ngaan ci biir kër yi moo tax ñu ñëw fas yéene waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa quartier gi jox leen micro ñoom ñu wax li nga xamante ne mooy lu ñuy dund fii ndax coono rek la ñuy dund ñoog suñu njaboot su tawee bu fekkee defuñu suñ buntu kër gi fi mu toll nii koñ boo xool rek ci lu uuf canal bi rek nii lañ ko def sinon ndox yi ci biir kër gi lay dugg sooy taal sax da ngay obligé jël ay mool teg ko mun a am sa fourneau nga teg ko ci xaj bu dee fii lañ koy dugal xar mu dee fii lañ koy dugal suñu xale yi ñoom ñooy obligé par dimanche mobiliser wu ñoom ñëpp di génn di bale di rato ngir xale yi am fuñ jaar ak mag ñi tout tànk yu ndaw lañ yor kenn mënut a génn bu tawee dangay dugal sa doom ci sa biir néeg maire bi fi jógee sax moo tane bi fi ne ndax bi fi jógee daan na dugal ay ñun ñu wàq kii Pokoné la fi indi wàq yëpp jóoral ñu ko fii boobu ba léegi ndox mi demul dikkut bu fekkoon da ko bàyyi woon na mu meloon sax ñun moo ñu gënal ni mu ko def nii xamul ne sax ñun ci Kaolack la ñu bokk xam ngeen ne lii ñaaw na doomu aadama bu yeewu di dund ci lu mel nii ñun daal bokk ñu boolewuñ ñu daal laa wax laa mun a wax xam ngeen ne nii doomu aadama moom buy dund bu ne dafa war a dund ci kaw set ak lu sell di lekk lu baax di naan lu baax bu tawee kenn du génn kenn du am fooy dem. muy noor ak nawet nag fii li ñuy wax li ñuy wax poubelle ñun daanaka ñun poubelle poubelle la koñ bi moom poubelle la rek ndox mi dafa nëb salté bëri yoo mbedd di kenn mënu see aw maire daf ñoo seetaan depuis des années et des années nag dama wax leen du si maire bi rek dafa yàgg. depuis des années et des années ñun mënuñoo am jàmm fii si koñ moo gën a bon si quartier yëpp yëpp yëpp yëpp koy woon mooy leen xoolee canal ni mel waaw de bout en lépp nii la mel ban bi bu bu yàlla ju tawee kenn du mën a dox mag mu fi aw daanu sama classe yi kenn mënu fi génn bu tawee dañuy tëdd suñ biir néeg yeeg suñ biir nawet kër yeeg yëpp ëtt yëpp ndox la waaw mën ñoom dara lu ñu si mën a dimbale nag jot nañ fu ne boor bu nee wax nañ subaa ngoon guddeeg bëccëg mairie di ñuy seetaan rat nag Serigne Mboup daf ñoo seetaan moom kooku moom ñoo seetaan lam ñu digoon lam ñu waxool lépp di matin au dara taxawu si dara amu si dara daf ñu seetaan carrément ba muy wax lam ñu digoon defu ko ba mu ne woon par exemple bu faloo fii yëpp da koy defar waaw rakise ko defar ñu ko lu ne ay gravage defar ko dara lañ si gisul dara waaw coono daal lañ nekkee ñun suñu bopp il fut des yoo xam ne fii laa toog fii saa sama benn doom fii la ba mu ji à la fin mu ji dee lu koy waaw waaw pourquoi pas parce que ndax lan li fii xam nga fii xale bu fi dugg ay microbe fi ne boo fa génnee naa la futur si dee nga jëm mooy indi problème bi ah dafa ñaaw sax jafe-jafe yi ñu kay mooy mooy problème bi lan xale yi classe gi classe gi ay tout tànk lañ ñii buñ fi génnee bu fi kennewul si ndox mi la ñuy dugg ñoom it ñu dee ak feebar boole si biir yu daw di wëccu lu ne ndax lan salte bi fi nekk ak yooyu métti yi bu ñu ne dañuy pompe fii moom dañuy teggi fii defuñu fi dara dara lañ fi defu tam nga deux moom dara lañ fi deful si coono bu métti métti lañ dëkkee. def nañ fi 35 ans yoo xam ne bu ñu gimmee ak léegi mais nii rek la mos a mel maire bu fi ñëw nag da nga fi dugg campagne wax a wax ba pare mais ba pare sa bopp rek fii suñu doom yi suñu rakk ñëpp bu na jotee ndox mi ci canal bi mooy duggaat ci biir kër yi ñu koy jànkoonteel ndax li boo xoolee mën joxe feebar mën na joxe lu ne ci àdduna te ku dikk yi nag. rek da ñuy dig nañu boo paree danga ko defar danga def naa boo ko tàmbalee nii ba paasu eh, asalem saara nii la mel bu nawet jotee ñun pare nañ ba ba ba noor rek la amaat jàmm nii sax mu mel nii yooyu di fi nekk guddi jot ñuy dugg seen kër di leen marti di leen joxe yeneen feebar bu ne ma cee mën a xaj ñu amoon daal ku ñu ci jàpp saafaraal ni ngeen nii dañ sant bu baax a baax parce que lu leen lu ne ñu ngi ko ci ñu ngi ko ñu sànni ci bi lu ne xar mu dee mbaam ko bu dee lu ne ñu sànni ko ci bi kon suñu amoon ku ñu ciy jàppale dimbali ñu nii dañuy sant. lii li fi nekk boobu kii kii kii doon wax ak yow judduwul xale bu ndaw lii lii lu fi yàgg la lii day day yàgg sonn kii ñoo mase Lamine mi ñoo foondoo waaye lii lii def fi sax nax nañ ñu dañ ko def ni de mel li ñuy wax dara amu ci ah man il m'arrive des dama jënd huile ci garage bi sotti ko ci pour rayon yi waaw ah, sur propre argent ah, te moi je suis non waaw loolu la léegi ah, naxaate yi dafa doy te te nax ñu man euh, maa ngi seetlu depuis temps wu Senghor yaa ngi dégg boobu ba léegi ñu ngi ñu nax ba du Diouf ñëw nax bi kon ne ba Macky Sall ñu yëpp kon ne ah nous sommes des fatigués ñu sommes fatigués. ñun bu njëkk bi maanaam Lamine mii di nekk oto mbay da doon wër oto mbay di ñëw di récupérer mbay yi yaa ngi dégg oto mbay chaque kii mu jaar mais léegi boo amul mari amoo amoo des moyens da ngay fay. da ngay de ut ot saret fay ko 3000 francs wala 5000 francs mu génne mbali bi sa kër dem dem dem tuur ko oto bi bu ñëwee dina toog pendant 10 jours du ñëw ah jusqu'à nit ñi euh, li neexul kenn mais ñàkk pexe la ñàkk pexe la neexul kenn parce que un père de famille un retraité nga bëgg a fay mille francs pour mu tuur saret bu nga joxe dépense bu nga lekk bu nga naan lépp cher vraiment daf ne foo jot rek nga xam mbalit ah c'est comme ça. dund bu métti la ñuy dund ñun li yéen da ngeen dañoo yéex a jot ci yéen. ndax fii dañoo yor ay tuut tànk yor ay xale waaye fii dañ fiy dund dund boo xam ne doy na waa doy waar go ko fi ñëw rek teg sa bët rek doo mën a xam ne jeeg ji dund fii muy mag ak nag ndax fii salte na ndox bi bu tawee dañuy wiiri seen joom du fi nangoo jaar ci kanaal bi ngay nuux su gisuma xale bu fiy daagu juddoo fi te tëmboo ci kanaal bi amut man mii suñ yaay man ñii suñ yaay ji dugg nañ fi tëmb fi ba tàyyi suñuy tànk di am ay problème ñuy yeew dem hôpital ñii sa taban hôpital boo fa demee da ngay dagg ticket far force duñ la xam sax la da soo amul xaalis duñ la faj duñ la lijjanti duñ la xool si buru bi même chose yooyu bari nañ kaw la ku a xam ne dafa bëri yoo ku ne xam nag passoir ni mel waaye nag ñun ku ñu dimbali suñ fii lañ bëgg képp ku ne nag politicien bu ne ñëw na fii di ñu nax ay 2000 francs di ñu nax ay mbubu ñun nag dañ see maar dañ see sonn soxlaatuñ loolu bëggatuñ loolu xam la lañ bëgg suñ canal bii lañ bëgg asphalte bii na suñ diggante bi ñu doon fi ay jaboot di fi sëy biir kër yi boo duggoon suñ biir kër boo paree boo paree nga ñëw ñu avancé ñu dem ba ci biir ku fi am gan da ngay am gàcce da ngay rus mënoo fee sa recevoir sa benn doo sa nit koo xam ne ku am personnalité la bu fi ñëwee da ngay da ngay da ngay am kersa da ngay rus da xeb sa bopp pourtant ay sénégalais lañ de fii lañ am fii lañ juddoo yeroo fi màggee fi ba yàlla may ñu fi luñ fiy may waaye mel na dund nañ fiy dund loo xam ne doy na waa torop ñun na kuñ ci dimbale rek lañ bëgg kuñ ci dimbale lépp suñ néegi banoo la ñuy teg mbaa say birig di tooj say lal say frigo di tëmb say bagage doo mën a say lu baax sax ba ay nawet bi jeexee da nga koy perte day togg da ngay jël ay palaat te table di teg say di toog loo rafetul yéen yéex ngeen fi waaye sant yàlla xëy na yàlla tey la ko dogal sonn nañ daal gii ñun fii lañ daanaka juddoo wuñ fi waaye fii laa yaroo depuis maam am 10 ans ba léegi maa ngi Passoire kon yàgg na sonn nañ metti na xoolal canal xoolal mbalit yi au moins xoolal ñii sax ñii nii ñoo gën a métti la deux kër yi nii ñu dend ak mbalit bi sa doom man sama amoon sama doom bugguma sax mu raamee Passoire soit mu fiy doxee sama unit sax bëgguma sax ñu fekk si ma fii barki Serigne Saliou Mbacké sonn nañ bi yàlla ji tawee kero ba yàlla ji njëkkee taw damaa jël ay mool quatre briques toj sama lal toj sama coiffeuse parce que da ngay gis frigo yi sax dañuy féey di dem soo waree dem si koñ bii da ngay wiir da ngay obligé dem ñun comme ni ko femme bi waxee soxna Kumba ni mu ko waxee ak sama yaay ji bëggatuñu yëre bëggatuñu vaal buggatuñu xaatum bëggatuñu dara buggatuñu xaalis ñu ku ñu toppatool suñu koñ bii moom lañ bëgg man politique sain laa yàgg naa dem politique dama naan teg fi oto ñi may topp may dem dégg nga mairie Kaolack bii war nañoo jàppale te yàlla rek tax dimbale ñu suñu koñ bii waxtu won na fi canal gi ma xoolal mujjul dem mbaam xuuxi dee yi dañuy obligé sax suñu buntu néeg yi dañ koy tëj lekk duñ ko mën comme ni ko ma waxee dañu teg gaz di togg surtout waa kër gii jàkkaaroo canal gi sus waa kër gi jàkkaarloo canal gi juste di nooy odeur yi au moins ñun ñoo leen tane parce que ñun sóoree nañ canal gi mais ñiy jàkkaarloo canal yi ku ñu jàppale daal moom lañ bëgg nañu nañu jàppale nañu dimbale defaral ñu suñu mbedd yi defaral ñu suñu canal yi ñun na romb nañ fu ñuy naxee kenn mënatu ñoo nax ku fi ñëwati indi sa xaalis bal nga indi sa yére ñu dàq la sa xaj ndox mi moo ñu sonal gis nga ma man mii toog nii benn doom bu góor dong laa amoon yàlla jël ko gis nga sama néeg bi sax dafa daan yenn wàll gi yëpp dafa daan ku ñu dimbale rek lañ ko ndox mi bon mi ci kanaar bi ndox mi day dugg ba ci kër gi gis nga ay tiwo laa na sax pour bu ndox mi duggee rek dama koy sàññi mu génn ndox mi daal moo ñu sonal waaw lu fi ne yëpp ndox mi moo koy yàq kenn du fi ñëw man mi ngay gis nii sëriñ buubu laa woteel ndax papaam moo nekkoon sama morom papaam moo nekkoon sama morom baaram buubu ba ñuy wote moom la sànnil kart waaye xamuma xawma ko waaye kenn mosu fee dugg kenn du ndimbal du dara nag dara defaluñu ko ndax tabaski ci ne woon nañ bind nañ suñu tur waaye gisuñu dara mairie defaluñu dara dara lañ defal dara dara defaluñu ko waaw defaluñu dara dara gis nga kër gi nim mel nii ndox mi day taaba ñuy xuus ki doon ànd ak Mariama Sarr Jegaan wan mooma may ay xeer ay suuf moom laa sakkee kër gi nii sax ndax ñu mun cee dox waaye dara defu fi dara dara mosuma koo gis sax musta taxaw fii musu fee taxaw musta dimbale kenn man gis nga man wala ci porte ma ne tëjal ñu kanaar gi man ki sama jëmm bopp mu dimbale ma lu ma ni dimbale te yàlla tax bëgg naa waaw man lu ma ni dimbale te yàlla tax bëgg naa sama néeg ba may fanaana nga ne dafa daanu su guddi jotee gis nga sànke bi mu nga ne ca ginnaaw mu nga ne mun naa dem sax ubbi buntu bi nga gis ko gis nga fii di jotee tawet bi la waaye fii laa doon tëdd wàccee sànk bi waaye nawet bi ci perong bi laay fanaan xale yi fanaan ci néeg bi mun naa ubbi bunt bi sax nga gis néeg bi ni mer gis nga ma ni fii mooy sama néeg xam nga gis nga xam nga ay bagages a ngi fi de daa jékki-jékki rek suur boobu yàllaa ma musal ma tëdd ba guddi rek mu xawee ko ci sama kaw xoolal matelas bi moom laay lal ci perong bi di ci tëdd gis nga ma ni sama bagage yëpp yàqu na yaa ko gis aw ma fenn fu ma tëdd ci perong bi laa doon tëdd ci ëtt bi bu taw ñëwee ma dugg ci perong bi nga mat laa bii ci laa fanaan biig mi ngi ni wéeru gis nga ko nga ko nii sëriñ boobu man papaam mooy sama morom man am naa juróom-ñaar fukki at ak juróom waaye benn doom bu góor képp la ma yàlla mayoon yàlla moom ko maa ngi ci jafe-jafe yu métti maa ngi ci coono yu métti. fii daal moom su tawee moom c'est le bordel waaw ndox meeg mbaam yu dee sax am na benn mbaam bu deewoon fii si biir canal bi toog nañ fi presque une semaine yoo xam ne ni mu ñëw nooy parce que mbaam yi fi mu duggoon dafa conservé ba dee foofu noonu yàlla ji taw ndox mi ñëw mbaam yi mënatul a arrière mënatul a reculer fi la nekk bënd ba seey ñun ñu dëkkoon fii sax mënuñ fee toog ndax xet gu bon vraiment kanaal bi daal war nañ see wax an année ñu ñëw tiire ko xam nga defar ko ba mu bien s'il le faut suñ ko mënoon a gas sax du utal ko ay dal nga xam ndox bi bu ñëwee sax doo day jàll naaj sax mooy tane lii parce que vraiment aussi li li rafetul daal. li ñuy sàkku mooy lan ñu ngi ay garabaay defal ñu ko fii si si mbedd mi ba mu sëkku ba fees del nga xam ne bu ndox dikkatee mbedd yi dañ dañ si mën a jàll nga xool lii lii dara taati miir yi sax ndox mi wan yi bu da si nekk ba mujj day daanu nit ñi defar nañ defar ba bëgg a dee waaw bu ngeen ko xoolee fii de bout en bout yëpp xoolal ni mbalin dara bu ñu indee seen oto yooyu bu ko waxee da koy sànniwaat fii ba ko fi ndox mi waat si biir. dara lañ fi deful ñu ngi sàkku daal la ñuy sàkku mooy lan nañu defaral koñ bi fii xale yi sonn nañ mag ñi sonn nañ kenn mënte génn amuñ fu ñu aw amuñ fu ñuy toog amuñ fu ñuy waxtaanee waaw bu yàlla ji tey si lu mu tàng tàng si biir néeg yi la nekk amuñ fu ñuy toog amuñ fu ñuy nekk di nga ndox mi ne fii si kanaat nga gis ni si biir kër yi la jëm day dugaat si biir kër yi doo am foo toog. population bi mu ñu doole lii état moo ko ma a defal maire population bi mënuñoo jël seen xaalis bi naa ca canal. loolu mënuñ ko boo xoolee buñ ko wàqi nii sax dina jëlee xam nga li nawet la xoolal xana wàqi amul wàqi amul dara dañuy ñëw ay calcul nii jël ay mbalit nii génne teg fii pare nañ ci fàtte nañu nañ ñu dimbale fàttal ñu suñu canal bi defaral ñu suñu mbedd yi ñun tamit ay doomi sénégalais lañ bu voté jotee ñu dugg ci biir kër yi di recensé nit ñi di jël seen carte yi te bu ñu faloo fàtte la xamatuñ yow yaay kan sonn nañu tàyyi nañ dee nañu damm nañu nañ ñu dimbale dañuy jël ay xar yu dee di dugal ñun ñooy obligé di génnee di sotti essance di lakk xam ngeen ne lii rafetul ay doomi aadama dëkk ci lu mel nii di ci dund di ko nooyi lii lu ñaaw la waaw tout tànk yu ndaw yaa ngi nii ci biir kër gi bu tawee kenn du génn mag ñi kenn du génn kenn mënut a dem fenn waaw lii dafa ñaaw lii rafetul ci Kaolack ndangaan gii ñu dëkk waaw na dëkk seexal lislaam bii ñu ne lii rafetul rafetul ñaaw na jekkul jaaduwul nañu dimbali jëm resoor laay ci Mawlana Cheikh Ibrahima nga xam ne moom lañ yaakaar àdduna ak alaaxira nga xam ne ci PM bi nga xam ne PM bu sell la ku dem ñëpp dañ fi wuyu si ñëw di ko ziyaare nañ xool suñ dig-digal bi fii la ñuy romb dem Médina Baye nañu xoolal suñ fii waay jëm resoor laay nañu dimbali loolu lañ soxla bëgguñ dara soxlawuñ dara ceeb beeg diw gi bëgguñ yére bëgguñ xaalis bëgguñ suñ fii lañ soxla waaw maa ngi sant di leen gërëm yéen ñi nga xam ne xaw ma ku leen fi indi di leen ñaanal yàlla nag ndax lu baax rek ngeen jug ndax lii ku ñu ko xoolal ba ñu seetal ñu bañ taxaw ak yéen fii man ne maa ngi leen di ñaanal yàlla ndax ba ma ko déggee sama ndékk dama kaa dagg ñëw ñëw di bëgg a wax ak yéen macha allah yana yaa jëm kanam télé bii fu mu bëgg a yan na ko fa yàlla àggale boo ko seetloo daanaka ci daanaka maire Ibey ba léegi maire bi mos a jaar la même chose ñun daal kaw la gisuñ suñu bopp ci li nga xam ne moom mooy ci wàllu cet wala leneen feebar yu bëri gis nga canal yi ko te maire fu daal dana nax ko population bi influence leen gëmloo loo xam ne nekkul wala loo xam ne du liggéey ba nga xam ne dana gagné confiance nit ñi ba pare amul dara loo xam ne dana ko mën a def du wàññeekuwaat sax ci population bi fi nga xam ne fa la jaaroon bañ fal ko mu dikkaat wax ak ñoom ci li nga xam ne loolu la maire man ak lu munul mais damaa xam ne la moindre chose maire bu mun ta fermer canal bi war a mën a wax canal bi yaa gis sa bopp bu nawetee xale dañuy daanu ci canal bi donc am na ci benn xale boo xam ne sax maa ngi koy fàttaliku ci te yi xam ne tëjuñ ko xale yi dañu ànd ak moroom xale mi muy tëb di daw bi muy benn drap bi drap bi lonk ci benn weñ bi mu defeenu ci benn weñ mu bënn ci la ñàkkee bakkan te donc risque ci la ñuy conduire ñun toujours parce que chaque jour nawet yaay interroger xale yi rek yaay inter yaay jéem a yaay jéem a naxante ak xale yi rek sinon bu ko defut dañuy dugg ci canal beeg yaay artu say gone mais nii soo demee bétuwaar nii la mel nangaan la même chose ñëpp daal ñu ngi nii waaw ñëpp daal ñu ngi ñu daal ci lii la dund loo xam ne kenn xamul kañ lañ ci jógee parce que maire fu ñëw daal da nga dikk wax a wax population ba loo xam ne loo mën ak loo mënul da nga ko wax nit ñi nax nit ñi ba jël seen carte woteel la ko ba pare Frank laay dem Dakar te amul ci kenn koo xam ne fii nii mën naa taxawal c'est-à-dire dikk taxawal population bi kaasal leen ci mel ni amuñ ci amul suñ ko mën a jooyee parce que kiñ ko séq ak moo la ëpp doole wala soit booy waxit sa wax amul foo xam ne sax war na mën na faa yegg am na sax mënu faa yegg ñu mel ni yéen sax yéen a mën a jottale suñuy kàddu ci kaw ba nga xam ni ñu dañu mën a dégg gëm a xam population Kaolack li ñu soxla parce que tey ji président fu ñëwoon tey war a jëm fii ci Kaolack duñ ko jaarale ci mbedd yi nga xam ne mbedd yu baaxul ci mbedd yu baax lañ koy jaarale la la preuve nekk barki dem président di ñëw fii rek mbedd bu tëli bu ko su ko na te Kaolack ko ba premier ministre lañ Kaolack mais ba léegi Kaolack mënu xar kanamu Kaolack mënagul changer c'est-à-dire doy na wax trop parce que nit boo dikkee wax ñu wóolu la parce que Kaolack bokkut ak yeneen dëkk yi Kaolack da ngay dikk rek wax ñu wóolu la damay wax sama benn xarit dama ne ko Kaolack moom Matam yam ñun dañoo nooy nepp état bu ñëw rek ñun ñu ànd ak état dem ba état bi jeex mu dem gisuñu suñu bopp ci dara ñi ñu fal nag bien vrai ñoom ñi ngi gis seen bopp ci yëf yi i kër taaw tey jii li nga xam ne maire moo war a dégager budget def ko nga xam ne man gisuma maire di ko def maire li mu gën fonk mooy teg xeer am sa partenaire teg say xeer teg sa xeeru soit stade wala leneen leen gagné sa marché am sa xaalis maire bi le président Serigne Mboup doomu Kaolack la fi la juddoo yaroo feebaru Kaolack mu xam ko bu baax juddoo fi yaroo fi nekk ba lépp lu ko terang bu ko def fi la ko defee xanaa léegi la gis ki xanaa Dakar mais vraiment ba léegi ñun gisaguñ suñu bopp parce que am na loo xam ne maire boo xam ne bu gëmmoon tey mën naa waaxu ba dem këram kenn ku ne xam na tur kenn ko jox la jox la seen mais yee ñoo mën a yee as néew parce que boo man mu gisoon que ni faloon ku mel ni Mouhamed Ndiaye Rahma nga xam ne mi ngi def ci social mi ngi def ci lu ne ci dëkk bi vraiment faloon ñu mel noonu sax nga xam ne ëllëg ci biir lu ñu mënti am te dañ ko bokk ak population man Ramé yow xool sax war nga xam ne duñ ne te am na maire da nga laaj ana maire bi ak kan xam ne am nga relation partenaire yoo xam ne am ko partout relation internationale mel ni maire nga tegaloon ñu budget bu leer nañ ñi naawut sama partenaire ñu def bu dee population bi ñooy génne seen xaalis di fay impôt sax bien vrai ñu sax nga xam ne euh, population Kaolack dañu gis seen bopp mais xar kanu Kaolack kanam Kaolack ba léegi mënagul changé boo tukkoon am 30 ans ci àll boo dikkee doo laaj sa kenn ku nekk mën ngaa wax bu dugg si amul benn changement changement fi am yaa defar sa kër sëkk sa dire lan la ñuy xaar ci état état li mu ñu war jox jox nañu mais lan la état xam ci li Kaolack di dund suñu lu mooy mooy suñu problème parce que bu doon toon tey jii bu président dikkee ko jooytu président dana ko jooytu mbiri Kaolack mais Kaolack vraiment bu fekkee di xippi nay batam xol soo ko seetloo sax fi nga gën moo xam moo gën bon ci Kaolack bu président Diatta yi jël seen militant sax rangale ko fa ba nga xam ne yooyu di ko gis mais li ñu mën a jotale suñuy kaddu ci kaw mooy suñu responsable nga xam ne Macky jox nañ ñu ville Carrefour la dafa neex a defar ni rigoli seet nga li des ñun kenn ku ci nekk yaa ngi mën a volonté wu di def si nga xam ne mooy sa euh, kéemtulaay kattan ci gi soo ko seetloo daanaka ñi nga xam ne yoo fa jot a baax ñi ñee def seen social ne maire dañ ne maire moo def te lépp li ma a métti sax mooy barki démb nga xam ne moom loo xam ne daf koy clôturer pour di ko fayee ñoom ña koy defar kon donc seen poche la ñun mooy population bi ñoruñ leen parce que la defar stade bee xaj xajut ci canal yi pour tëj ko biir boo demee bétuwaar la même chose suñu télé bi ñu fa commencé woon sax ba léegi yëggul bu tawee télé bi dafay taal ndox yi amuñ fu ñu jaar canal duñ ko tëj te donc xam nga ne fi nekk bétuwaar ndangaan jale ñun daal vraiment ñun ñu ngi nii amul changement au-delà des dégg ngeen ñi nga xamante ne moom la askan bi euh, yëkkati ci jafe-jafe ci li nga xamante ne mooy insalubrité bi mais aussi ci ñi nga xamante ni daanaka ñoom ñooy kilifa yi ñoo yor ndombal tànk ku ci mel ni seen maire nee nañu daanaka maire bi da leen beddi wala bokk da leen faaletul ndax euh, ñoom li ñuy digalante ak moom defu ko te ñoom lu ñuy dund métti na lool ba tey di tàllal loxo ki nga xamante ne moom mooy seen maire mu daal di leen dimbali ndax fii ku ko gis xam ni mun na jur ay jéeya du ci mel ni euh, benn ay xale yi mën nañ ci daanu ñàkk seen bakkan mag ñi aussi euh, kazalika mais aussi li nga xamante ne ay feebar la mun ko jural askan wi euh, muy situation boo xamante ne dafa doy waar la fii ci Kaolack ci quartier boo xamante ni daanaka boo ñëwee rek di nga gis ni ki euh, bëri na salté mais aussi ndox yoo xamante ne ndox yu tilim la te baaxul ci askan wi donc ñoom di tallal loxo ñi nga xamante ni ñoom ñooy responsable politique yi nekk Kaolack ñu daal di leen gestu bu baax a baax a ba ñu mën a génn ci situation bi la